kon balaa ñoo tàggoo ak yéen li ñuy def mooy fàttali leen fàttali leen jubilé Moustapha Gueye à Paris jubilé Moustapha Gueye à Paris mu doon le 23 octobre xam nga ni xaar may ma jaaga ndikku cuun duur sekk faatu géwël ñu ñëpp dinañ teew boole kook nag mbër yi nga xamante ni ñoo xew ci jamono Balla Gaye numéro 2 Modou Lo dinañ fa teew Double Less ak mbay Guèye dinañ fa teew ak ñi nga xam ne ñoo di doomu Sénégal yi nekk Europe yëpp ñu ngi koy waajal ñoom ñëpp ñu nga jëm ca jubilé ba le 23 muy am ca Paris loolu nag xam ngeen ni 2STV yi ak Tafa Gueye ni ñu ànde woon ci jubilé bi doxal lépp lépp jaar yoon noonu la ñu fas yéene aussi àndaat ci jubile bi ca Paris le 23 octobre bu soobee yàlla lépp lu fa xew képp kuy téléspectateur u 2STV di nga ko yëg ndaxte Tafa Gueye ak 2STV yaakaar naa ni mariage la boo xamante ne ni ci kanam la jëm. li nga xam ne moom la ñuy def mooy xam ngeen ne tournoi bi amoon muy làmbi géej ah mu doon làmb joo xam ne traiment ñoo ko taxawaloon gis ngeen ko bët ki démb niñ leen ko wane démb waaye nag dañuy ñëwaat ndaxte nawetaanu làmb la douze écuries ñoo ca nekkoon ñu am lu ci xoolaat di encourager waa traitement di encourage Lamine Sow mi nga xam ne moo ko jiite ndaxte lii yëpp mooy li nga xam ne mooy yokk làmb xale yi ñëw ci géej gi ñoom Jordan ñoom Brise de Mer xale yëpp ñëw nañu ah kon daal Lambi Géej moo xew ñu leen di joxaat rendez-vous Géej dimanche arène bi ca jàmmalaay dimanche bii di ñëw ak ba ci topp ci la ñuy def clôture yi ànd ceeg 2STV yi di encourager it jamono équipe bu nawetaan bi nga xamante ne nii ñoom it ñoo gañe li nga xamante ni moo di championnat nawetaan national yi nga xam ne moo doon am ca Ndar dafa Kanji sunu xarit supporter dirigeant fans club bu jamono yëpp ñoom ñëpp ñu ngi leen di encourager di nuyu suñu jigéen ajaratu njooxa ndaw Abdou Pen boroom këram fàttewuñ ko ñu ngi nuyu Mama Maroon di nuyu Fatou Gueye sunu xarit ah ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp nag fàttewuñu ci kenn ah di ñaan jàmm ju bari ci barke yonent bi ñun ñëpp ñu bokk ko lii moo nekkoon Bantamba tey ak 2STV yi Tigo ndaxte avertissement bu doonee ñett dina am lu nu jël ci yow te ñaar ñii di bëri jël ci ñoom dara yàq la ndaxte nu mu mën a demee ñi ngi neexal làmb ji muy gaynde di yaawu jaal ñoom ñaar ñi ngi bëlee gaynde mooy en waaye xel la koy defe de gaynde ak yaawul jaal gaynde jël na tànku yaawu gaynde jël na tànku yaawu gaynde yenu gaynde yenu na yaaw gaynde yenu na gaynde bi leer na jël bi leer na mais mais dañuy wax rek mais doo moroomam ah. waaw ma ne doo moroomu yaawu temps yi. kese doo moroomam Moustapha Gueye Yékini laa bëgg ku ci daan jox ma ko. Ah bon waaw loolu laa bëgg tey. doo xawal ñeneen. waaw Moustapha Gueye Yékini nag ku ci daan bëgg naa ah bon. waaye na cuuc bëgg naa ko. mais lan la temps yii. tay affaire yi doxul la lu waraloon. te gars yi laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam man daam ñoo xam ne ñu may xeex yaa ma dégg man sama jëm bopp am na ñu may xeex mais na xoolal. maanaam xeex bi nu mu demee. xeex bi mu demee ay mbir la c'est man grand place guddi ak toogukaayu guddi ma du ma ko def yaa ma ne ma ko def gars yi ñuy bëgg si ñoom mais ma fa nangu fréquenté ne dañoo bëgg may toog ñoom di waxtaan mais man loolu mënu ma ko. xanaa dafa am ñun lay defaale. ay mbir la quoi loolu la moo tax xoolal mu bàyyi si biir waaye na xol dama daan daan muy neex bu demee ba demee ni dina na quoi lépp damay xoolaat ne coow ci lu garaawul. Mariama mooy sa yaay ku la bañ Ousmane Tougalor bëre nga bi yàgg na waaye daan nga dafa mel ni am na yeneen feem yoo indi yoon de. waaw dëgg la le retour de Ousmane Tougalor la wax parce que nit ku ne boo amee gàllankoor da ngay delluwaat xoolaat sa nga dellu sa cosaan ñëw ku nekk xam ne Ousmane Tougalor bu ñu xool si sama taay bi dañ ma jox si moo bëre champion yu mag yow ci mbabat li may def nii rek sama ouverture la ci làmb quoi mais le retour de Ousmane Tougalor amoon naa ñaari gàllankoor troisième combat bi fii ci bis bi nga xamante ni moom la ñu wax drapeau de l'alternance lii nag moom gis ngeen ko taala ngeer moomu li mu diwoo woon moo tax arbitre bi ni ko tuural ndox taala ngeer a leen ko nag mbër lay doon de bu soobee yàlla waa bëti mbër la yor ngi ci moom waaw waaw mbër nii lay mel waxoon ko mooy waaw waaw cib <laughs> xoolal lii waay aha arbitre na leen ndax pare nañu pare nañu Talla Nguer ak Momar Talla Momar Talla moo féete seen ndijoor Talla seen càmmoñ xoolal ñoom ñaar ñu ngay bëre Talla seen càmmoñ Momar Talla eh laa ilaha illallah ah daan na ko jël bi leer na jël bi leer na ca bopp bala supporter yi bàyyi leen dégg nga nga am conscience tranquille nga toog déglu ko la wàccil nga déglu ko paa bi la waxoon bu ko fàtte nee na la bu ko sori loxoy day ñëw wàccil nga xaar at mii ñuy dugg ci saison bii nga xamante ni moo di saison 2007 2008 ah Pape Mor Lo Pape Mor Lo jël na ki nga xam ne moo di Ablaye Balde Pape Mor Lo Ablaye Balde waa jël am na bu dee 4 appui la jël am na Pape Mor Lo daan na Ablaye Balde. nañu yàq lamb arbitre bi sifflé waat na Pape Mor moo ngemboo ngemb bu ñuul bi Ablaye Balde moo ngemboo ngemb bu weex bi ah Ablaye Balde doon na ko jël Pape Mor Lo Ablaye Balde Pape Mor Lo seen càmmoñ Ablaye Balde seen ndijoor Ablaye Balde moo ngemboo ngemb bu weex bi Pape Mor Lo doon na ko ngir mu sigi mu gën a mën a dugg waaye lay Balde ngi ci suuf ngi dóor ci suuf bu nu xoolee chute bu njëkk bi quatre appuis am na kon jël amoon na quatre appuis dadul dadul chute beneen yenoo ngoogu bii nag bii nag kon daanu na Pape Mor Lo daan na ko Pape yaa jëkk bëree ci at mi yaa jëkk a daan loo wax ci ubbi teg waaw ginnaaw bi ma sant yàlla jur senant bi sant sama ñaari waajur di sant père Birahim Ndiaye di sant waa Grand Médine yëpp ndax jàppale nañ ma ci combat bi aw ma seen fay yàlla moo am seen fay yàlla nañ fay. Paul Maurice moo leen won ginnaaw noonu ak Khadim Diallo Paul Maurice doon na dem ba di ko bëgg koo dugg Paul Maurice bëree bu lay bëree bu dee léewtoo boo dee xool fàtte na ni bëri dóor la ndaxte dafa ko bëgg a jël Khadim Diallo Paul Maurice ah am na ko boppam Khadim jàlla bopp baa ngi ci suuf Khadim Diallo bopp bi mi ngi ci suuf. waaw ndaxte boo dee bëre waaw waaw waaw waaw waaw sa premier combat la Iba Mar Diop waaw nga am ci mu def ci yow bon mbégte bu rëy di gërëm sama encadrement sama sama kër kër daal lan nga yaakaaroon ci bëre arène est-ce que gis nga ko waaw maa ngi yaakaar bëgg naa aussi carrière daal ci biir bañu ma kenn kuñ ma jox rek ça va. pour ñaata at nga am maa ngi maa ngi juddu en quatre-vingt quatre-vingt waaw maa ngi ci 25 ans quoi. mais bëgg nga def daal carrière ci làmb. waaw bëgg naa ko bu baax a dis dis affaire daal li may wax mooy muy sama kanam quoi instant man vraiment pour bëre dama juwee nag xam nga ci ay bëre quoi yàlla dama ci may defe te yàlla may na man da maa ngi koy sant yàlla di ko gërëm. lépp rek saxal waaw parce que parce que nit boo ñi nga xamante ni am tur pour pour bu bëggee avancer da ngay xool ñu avancer nga ànd ñoom. Papa Sow dafa indi rakkam bu mu bokkoon ndey ma daan ko mu indi turandoom mu daan ko kon war na mën a jëlal ñooñu ñu bëre. kon boobu mooy combat bu njëkk bi diggante super jamono ah combat bi metti na diggante super jamono ak Mbaye Gueye numéro deret ji bari na deret ji bari na deret ji bari na arbitre bi ndax day arrêté lamb bi waaw waaw deret ji bari na ëpp na ëpp na ëpp super jamono lii mooy wane ne xale yi seen combat dafa metti dereti kese la yaakaar naa ni lii lii woy dinaa la yóbbu ci ardo dinaa la yóbbu ci ardo metti na lool ñoom ñaar ñu ngi leewtoo ah super jamono jël na ko mbéy ngay bañ na combat bu metti ñaari xale yi seen combat metti na lool super jamono jël na ko daaneel na ko arbitre yi ñu ngi gisee ci seen biir waaye action bi super jamono moo ko mëne super jamono seen combat deret gi bari na non mber mu bari ndax ci kër laa jóge dama ngemboo parcelle waa Sénégal yëpp topp ma sama Pape Malick jàppale ma boole ma ak waa Femben sécurité ñu defaral ma ay tiset boole ma ay publicité moo tax man foo ma daan. Baye Peul seen ndijoor King Kong seen càmmoñ King Kong faas King Kong ah King Kong attaqué na Baye Peul dox waaye Baye Peul sol na ko King Kong ak Baye Peul Baye Peul rock énergie King Kong faas Baye Peul nga yenu Baye Peul nangu ah King moo ko bëgg a yenu Baye Peul bañ na. ah King Kong ak Baye Peul Baye Peul King Kong a ngi koy daaneel waaye King Kong mooy wala Baye Peul ay daaneel King Kong King Kong a ngi bañ na King Kong koy yenu bañ na bay ah sapel na ñeenti quatre appels ngi noonu quatre na encore moom kay mbir mi doy na lool waaw léegi nag léegi. léegi King Kong jógaale na ko King Kong ah Baye daan na King Kong sonn nanu ndeysaan King Kong bëri na ba sonn kenn musul gis li ñaari góor yu sonn ngi noonu làmba ngi noonu kaay sama doom sa doom sonn na xaar ko mu jóg daa sonn maa tax combat bi ci sëñ mu ne day naan sonn naa lool amoo 4 appui yow ah yow amoo 4 tang seeral ma dama sonn gisuma combat bi maa ngi sama yaay sama yaay moo tax may rayante arbitre bi sifflé na diggante Ndiaye Malick ak Zazu Ndigoy ak Jolobu Ndiaye Malick nag moo jiital tànku càmmoñam ngemboo ngemb lu weex Zazu moo jiital tànku ndeyjooram ngemboo sëru Lagos bi ñu ñoom ñaar ñu ngi leewaatoo Zazu na léegi waaye dalul ndeysaan wax nañ ko léegi ne Ndiaye Malick li mu am ci lamb bëriwul mbër ju ko ci lamb Modou Kane mi jur Papa Kane mbër la. Papa Kane mi ko jur mbër la moom mbër la waaye waaye Zazu touché na ko léegi door na ko crochet gauche Zazu sànni na Ndiaye Malick sànni na léegi ñu ngi leewaatoo Ndiaye Malick ak Zazu Ndiaye ah Ndiaye Malick sànni na léegi crochet gauche moom tam direct gauche ah sànni na ah ah Zazu koy jël waaye Ndiaye Malick dafa reculer ñoom ñaar ñu ngi damante baaraam. Sassou Ndiaye Malick ah Ndiaye Malick jël na ko rappel na ko daan na ko Ndiaye Malick daf ko jël daf ko xob ca kaw rappel ko daan ko jël bu rëy. ñun ay xale rek lañu dañuy doog door comme la ngelaw nag bon mënu ma ko yàlla may ma may ndam mais ma ko ñaan may ko benn pro contre son may ko ndam. non man gaynde laa. man man xam nga mooy su may bëri yow damay waxtaan na yow su may bëri yow damay waxtaan ak yow maay sant waa Espagne ñoom fukk sama combat nekk sama kanam nag bari na bon dugg naa face a fan dana ndam Brésil maa ngi ko dégg léegi muy muy ré wax bu ñëwee ma tëgal ko Ndiaye Ndiaye da téye naa ko Mamadou Mamadou Ibrahima Ndiaye Mamadou Ibrahima Ndiaye téye naa ko daan ko fa jëlew rëy xaw kam naa la su ñëwee tey nag ma tànn ma ko mbokk yi boobu beneen combat la diggante Zal fay ak sénégalais sénégalais ngeen jàkkaar lool moo féete sunu ndijoor Zal fay moo féete sunu càmmoñ sénégalais waay Zal ak sénégalais ña ngay xeex ña ngay xeex ca kaw ña ngay xeex ña eh! dóor na ko mu daan Zal dóor na sénégalais mu daan daan daanu bàyyi ko mu toog balaa moom miir ndeysaan gaa yaa ngay bàkku victoire a ngi noonu victoire a cey victoire bàjjo bi jar na lu ne jar na bañ a nelaw jar na quatre heures du matin nit ñi nelaw nga jog topp géej gi Pape Konaté école de lutte Balla Gaye Pape Sène Mermoz ñoom ñaar ñi ngi léewtoo ñoom ñaar ñi ngi léewtoo ñemente nanu de ñemente nanu ñemente nanu Pape Konaté jël na ko waaye Pape Sène bañ na rasu na rasu na sol ko bëgg na ko uñ doole ja rëppel na ñaari oomam daan na ko Pape Sène daan na ñi xam ngeen su ma yox koy xam ngeen mais man instant booy bu ndaw la xam lan laay wut force doole moom laay wut instant yi booy bu ndaw doole laay wut ba mu ko nee ñeex mu xam ne am naa doole eh, booy ñaa man ko e ku ko ko wax it da nga koy man ko ci xeex mën ko ci bëre yàlla nag moo yor ndam mais boo ñaa leer na la tey bu doon dox maag moom bu dajee xaaju guddi su ma ko ne dawal mu daw mbër bu ma mën a duma daan ma kooku yàlla sàkku ci mbëri na dëggal sa bopp nga xeex boo xeexee fi ngay jaar dootoo xeex boo ngay faatu man Pape Sène maa la ko wax incha allahu rabbi ñoo ngi ci stade Iba Mar Diop gis ngeen ni stade bi mel mu doon drapeau Aïda Mbodj Boy ñaar di ko bëree Pape Sène ndeysaan gis nañu combat bi nga xamante ni nii Lac am na ci ndam moom tamit mu daan fii Holyfield numéro 2 waaye Pape yaa ngi bëri ko am expérience Pape Sène daaneel nañ ko Pape daanu na waaye ay waay jëli bi gaaw na dóor ah jël bi jël bi gaaw na jël bi gaaw na je vous l'avais dit de on doon de jël ah, ah, ah, champion champion buy bëri nu ne daane. waaw dóor quoi du naax dëgg. da ko dóor dóor ci dóor yoo sama loxo. waaw mais dafa jël coup. waaw dafa naan quoi mais dafa gaaw a. dafa naan ma wax. ah maa ngi sant yàlla. waaw julli ci yonent bi sant suma ñaari waay. père sama papa dama ko bëgg a dimbali. waaw am na ñoo xam seen toom am nañu quoi. sama papa dama ko bëgg a dimbali quoi. mais nag ren ak déwén beneen affaire day ñëw. ñi xam ñi xam dëgg. kon dañoo xam li may wax quoi nekkul li may wax nii dama koy kii nii rek. sama papa ak sama yaay. dama la a dimbali quoi ñu ma jege dëgg ñoo xam quoi. de yombul yombul parce que dama koo xool. déplacé ko kën mu naa la ko nee naa la dañuy ëkkonte ku ci xeex sa morom dalay pëtëxlu nee naa la ci bëre la ñuy tàggoo je may lamb lu ma la wax bindal. champion feeñ la le fils de De Gaulle là je vous l'avais dit c'est le fils de De Gaulle ndaanaan ñëw na ci làmb géwél yi am nañ mbër min asamaay kubur abbaay saay bu sàppaay jàmbaar léegi léegi jàmbaar jooju say jàmbaar ah ci li tax nga invité. waay mbiro fi sax doom waaw. mbar doole bare doole. xam nga foo ko daan. waaw dal fa ñaari ñoore. waaw sa xarit daan. non moom di. waaw gaañu bëre. laala laala mérité na décoration. ndax xale la boo xamante ni. xale bu mën a bëre ñu déglu woy. borom dëkk li ah ñi mooy Ndeye Samb. ah kii kon mbokk Mbaye Ndiaye Samb la xanaa. voilà mooy jabaru Boy Diouf. ancien mbër ancien lutteur dëkk mbuur te dama ne dootuma def dara te boolewuma ci waa Mbour. xam nga dafa woy ca Mbour. waaw ci lambi Pakala. waaw ak Matar Gueye. woy fa ma déglu woy bi ni kii de ndaanaan la war nañ ko xajal. voilà waa nii yow nag yow nag da non c'est que nag Bécaye xëyum 404 ak ngontub avion mënuñoo bokk nag yow tamit du benn waa bokkul safit <laughs> kon loolu rafet na wax nga dëgg ci bokkul safit kon xale yaa ngi noonu ndeysaan wa yu neex Mbaye Ndiaye Samb mi magam ci tagg yonent bi bokk na ci ñoo xamante ni duñ leen fàtte mais Bécaye Modou am na combat Modou Lo moom am na combat de <laughs> waaw am na komba bu mag ah na combat du tuuti waaw. ndeysaan Modou na ko yàlla jàppale nit ku baax la. nit ku baax la daal wax dëgg yàlla ku ko bañ bañ nga mbër ku ko bëgg a bëgg nga mbër. bëgg la jàmbaar bu baax la. et puis xale la. waaye Zallo. Zallo ak Lac de ñi ngi ci diggu géew. arbitre bi laaj na ñu koy jàppale ci atte bi ndax pare na noom déet. nee na waaw arbitre bi sifflé na Zallo Lac de Guiers moo leen féete ndijoor wala moo leen feete fii ñu toll nii càmmoñ Lac de Guiers leen féete ndijoor ñoom ñaar ñi ngi léewtoo ku yàkkamti ñàkk Zallo ngi dox di ñëw léewtoo wa aju na ñaari champion lañu gis ngeen écartement wu Lac de Guiers ndeysaan di nuyu Thierno Ndiaye Alaaji Papa Dieng na njaay ñu koy jaale waajuram moom tamit rakku waajuram genn àdduna yàlla na ko yàlla xare àjjana Zallo Lac de Guiers Zallo Lac de Guiers ñoom ñaar ñi ngi leeto ñoom ñaar ñi ngi a ngi dox jëm ci Zal ndeysaan ndeysaan Lac de Guiers a ngi door Zal a ngi door Lac de Guiers a ngi jàpp na ci ngemb de Guiers ak jàpp na ci ngemb Lac de Guiers Lac na de jëlaan na Lac na Zallo Lac Lac de Guiers daan na Zalo waa loolu mooy li am fii Zalo ngi tëgg ci saaku yi Zalo ngi ci saaku yi ñu ngi koy yëkkati ndaysaan Rock Mbalax a koy yëkkati ndaysaan làmma ngi noonooti Lac a ngi dem di ko jëli Lac a ngi dem di ko jëli mbokk yi fii ci Tambacounda loolu mooy li am waaw ñoom ñaar ñi ngi taxaw di wax. Ah, Yaram Gueye avertissement yi bëri baaxul de avertissement yi bëri baaxul de day dagg sa cachet am na quatre avertissement ndeysaan tër na ko naar heure tër na ko yaaram génn na saako yi waaye yaaram gay xoolal li ngay bëre waaye saa bu ngeen génnee baat bi sifflé nga door ko loolu bokk ci waay avertissement Abdou Dama Diamata ah sa waay ma ngay jël ah dund kale la ah daan na ko jël bu rëy jël na ko jël bu rëy Pape Mor Lo Colonel Sagna Pape Mor Lo ba xam njëppen la ilaha illallah la ilaha illallah ay bi jël ay bi jël na Boy Niang goro ba nga jël plaque jël na tànk bañ na laay lay la la Boy Niang ñaas ñaas laay lay la la laay lay la la ay ñu jël madame l'ambassadeur gis nañ ci